الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ay yéen mbokk julit yi ñu ngi yeesal sant suñu boroom bi nga xam ne mboolem xéewal bu nekk ci ñun ci moom lu jóge mboolem lu ñuy yaakaar adduna ak alaxira moom dong moo ko mën a joxe ñu ngi seede ne kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul moom niñ koy jaamoo it ñu ngi ko war a roy ci yonent bi mu yónni woon ci ñun sunu yonent ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy rey ba ila yawmi din ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca topp yàlla ku nekk ci ñun nay xool boppam di régler boppam fan la toll ak ndigali yàlla xoolaat ay waxinam xoolaat ay jëfam waajal boppam keroog biñ koy taxawal ci kanamu borom bi subhanahu wa taala nga xam ne lépp loo mosoon a def ci kaw suuf dara du ci réer ngal la waay mbokk julit gannaaw loolu xam leen képp koo xam ne yàlla dogal na mu nekk sabab ci gindi benn jaam ci jaami yàlla yi kooke mu gindi lam ko jàngal ci mbaax fi yëg mi ngi koy jëfee ba ilaa yumi diin tiyaaba jooju dañ ko koy bindal ca du wàññil ko koy jëfe dara waaye képp koo xam ne da ngaa jàngal nit ku lu bon fexe bam xam lu bon mboolem lu bon lam ca def dañ la bindal bakkaar bu tol noonu ca du ko wàññil ca bakkaaram dara sunu borom yàlla mi ngi meral yowmal qiyaama ñoo xam ne nee na daan yenu seeni bakkaar ba mat sëkk ba pare yenuwaat nag bakkaaru ñépp ñoo xam ne dañ leen réere loon loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam feddali it te la nga xamee ne nii mooy xadis ba nga xamee ne nii waxoon na ko ci ko woote jëme ci njub mboolem ña ca jaar seeni tuyaaba da nga koy am ku woote jëme ci lu bon mboolem seeni bakkaar dañ koy am loolu itamit mbokk war nañu xam ne suñ jamonoy maam yi day woote jëme ci lu mën a doon nekkoon na lu tënk lool ci benn place tënk lool ci benn jamono lu néew ci doomu aadama yi la daan jot waaye mbokk léegi jamono bi mu soppeekoo gis nañu ne xabaar léegi amatul place xabaar bu jóg léegi mën na wër àdduna bal xabaar yooyu tamit amatul fu mu tënku li xew léegi mën nañ koo denc fii ay siècle doomu aadama yi di ko jëfandikoo na doon loolu lu baax la na doon loolu lu bon la moo tax ñun ñoo war a gën a fagaru ca la nga xam ne suñ maam yi dañ caa nekkoon donte ne ne mbokk julit gis nañu ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala noonu nga xam ni noonu lañ doon tase xabaar yi nekkoon na bu jëkk di limité wu ci luñ daan tuddee ay rajo ak luñ daan tuddee ay télévision waaye al dañ doon ba suñu jëmmi jamono mooy suñu borom yàlla dogal benn mbir boo xam ne yombal na ko lool mu am njëriñ lool am musiba lool waaye yàlla yombal ko lool ba tey jii da ngay gis ne boo doon xool la ca nekk ci lan ca mën a jëfandikoo ay millions la waroon a jar ndax oto yii di jar ay millions kat ëpp ñu ko njëriñ mbokk loolu mooy lan mooy portable yi nga xam ne ñi ngi am njort ne mboolem ku ñëw ci jàkk ji tey am na ko portable boobu nga xam ne nii doomu aadama yi duñ teqalikoo ak moom foo toll mën caa xam li xew ci waxtu woo xam ne waxtu wu gàtt la foo toll mën caa yónnee ay wax wala ay photo wala ay vidéo yoo xam ne ci benn place ngay taxaw waaye mën na wër adduna bi yépp ñooñee jël ko daal di koy denc lu leen neex loolu mbokk xam leen na natt bu rëy la bu yàlla nattu doomu aadama yi tey mooy bim ñu indilee la nga xam ne mooy portable te xam leen ne suñu borom nee na wama bikum min ni'matin fa min allah mboolem oto yi ak avion yi mboolem train yi ak lu mu mën a doon xéewal la boo xam ne sunu borom yàlla moo ko defal doomu aadama moo ko tàggatal doomu aadama donte ne la taxoon yàlla tàggat ko mooy doomu aadama mën a nekk ci kaw suuf nekkin bu dal mën a ci dund waaye mën a nekk moyen bu mu jaamoo boromam subhanahu wa taala waaye mbokk xam leen ni xéewal bu mu mën a doon xéewal bu mën a doon ñaari place lay taxawee imma nga xam la nga xam ne moo ko tax a jóg te mooy mu yombalal la nooy jege sa borom nga jëfandiku ca loolu mu nekk xéewal ci kaw xéewal nekkal la yiwu àdduna wala yiwu àllaaxira wala nga jëfandikoo ko foo ko wur te jëfandikoo mu nekk musiba ci yow adduna ak alaxira jaasi ngi nekk ci xéewalu yàlla waaye ana ñan ñu ñaata ci doomu aadama ñoo xam ne jaasi yaak paaka yi lañ ko jëfandikoo mooy rey seen moroomi doomu aadama wala tuur seeni deret naka noonu itamit mbokk portable yooyu noonu la mel ay mbokk julit portable ak a baax ak ay xéewal gu baax ana ñaata tey ci doomu aadama yi ñoo am xam-xam yu bari yoo xam ne xam nañ ko ca yàlla mi ngi dogal ñi ngi ko jaarale ci portable yooyu ana ñaata ñaan lañ ci mën a dégg ana ñaata ñoo ci mën a télécharger ay kaamilu alquran ana ñaata ñoo ñu mën ci mën a télécharger ay kaamilu diine mbokk ana ñaata tey ñoo mën a dugg te la nga xamee ne mooy sib yooyu mboolem waxtaan yi am ci kaw suuf da ngay gis ne doomu aadama yi ñu mën ko cee jël tey jii la nga xam ne mooy lim bi nekk ci jàkka ji li nga xam ne mooy matériel bi waa xam sa diine ñoo ko def suñu pare xutba bi mën nañ ko dañ koy dugal foo toll ci àdduna bi mën koo déglu loolu itamit ngay demee fu la neex tey xutba yi nekk makka tey man nga toog sa kër déglu ko yi fi jaaroon ay at man nga toog tey déglu ko la nekk madina ak feneen naka noonu kon mbokkoo gaa yi portable yooyu ak a baax ak lam lay jokkaleel portable yooyu gis nañu ak a mën a woote ci wàllu ñaax nit ki ci mu def lu baax aka mën a nekk loo xam ne occasion pour jokk ak mbokk la aka maka mën a nekk occasion pour dimbilente la nga nekk États-Unis daal di yónnee kenn léegi ci ay Western Union wala leneen ak leneen léegi loo xam ne du ko war a di na ko mën a dimbilikoo aka bari ay problème yoo xam ne nii moom la réglé aka bari loo xam ne nii mbokk doomu aadama yi mi ngi ci am njëriñ yu dul jeex te la nga xamee ne nii moom mooy ci diggante loolee bari na ñoo xam ne ci loolu la ñu tuubee bal bari na ay yéefar yoo xam ne ci loolu kese la ñu duggee ca la nga xamee ne ni moom mooy diine lislaam loolee kon ay xéewalam ko ko doon lim mbokk bari na lool waaye nag mbokk naka noonu noonu mu nekk xéewal noonu la nekk musiba musiba boo xam ne ngir tasaare ak mbon tey ci kaw suuf amul lenn lu ca gën a gaaw ca la nga xamee ne mooy portable yooyu nga xam ne tey ndawi jullit yi ak ndawi yéeféer yi ku nekk ci ñoom am na ko di mën caa jokkoo nu mu ko neexee muy nekk di jàngalee la nga xam ne mooy ak mbon waaye nekk di tasaare la nga xam ne ni mooy ak yàqu jukko loolee nga xam ne jegele na xale yu góor yi ak xale yu jigéen ya loolee nga xam ne indi na fitna ci biir kër yi ay sëy yu bari tey da ngay gis portable yëngal na leen ci ay jokkoo yoo xam ne nii ma ngay am ci diggante soxna yi ak góori jàmbur wala jëkkër yay jokkoo ak yeneen jigéeni jàmbur baaw da nga xamee ne nii bokk na ay statistique mooy ay nattuwaay yoo xam ne def nañ ko xalaat kay di xalaat ci wàllu nekk ñu doomu aadama gis nañ ne bi portable xewee ak suñ jamonoy tey la nga xam ne mooy tas yi daan am ci diggante doomu aadama yi dafa gën a fulu gën a bari ca bari na lu ci bari sabab yi mi ngi jógee ca la nga xamee ne nii moom mooy portable yooyee mbokk la nga xamee ne mooy portable yi fitnaal na doomu aadama yi bëri ci seen jaamu yàlla benn waaye ma nga ne tey heure boo xamee ne nii ma ngay julli bu sëlmalee la muy jëkk a def mooy yëkkati portable am xool ana kan moo doon wax ak moom mën naam sax mu jaare sa fàtte askar yam doon def ana kan ngay ñaata nit ngay gis noddukat baa ngay noddu ña nga taxaw gàddu seen portable di wax ba far julli mbooloo ga raw leen wala ba far takbiratul ihram sax war raw leen la suñu borom yàlla waxoon ci sangara ak carte mbokku la ko portable di def daanaka moo gën a bari te mooy di fet nit ñi ba duñ def zikrullah yi nga xam ne moom lañ waroon a def su doon sene sunu maam yi lañ leen xame woon mooy ñu gàddu la nga xamee ni nii mooy seeni kurus même boo jàppee ne kurus bi daalaak lu mala doon yaa xam waaye ala kulli xaal ñu ngi nekkoon seen azkar wala gàddu seen téere alquran tey lan lañ ko remplacé mooy nit ñi seen waxtu yépp ku nekk yaa ngi gàddu sa portable yaa ngay naviguer gauche droite loolee mbokk la nga waroon a toog di def zikrullah ak yépp da ngay gisee ne loogu portable yi loolu lañ jagleen loolee boo yewoo sa biri lal la ngay jëkk a xool mooy portable yi ana kan moo doon jokkoo ak yow loolee mbokk dañuy gis ne indi na ay fitna yoo xamee ne nii rawatina ci ndaw ñi ndaw ñu bëri tey amatuñu jotu toog ak seeni waajur ñi ngi nekk branché wu ca la nga xamee ne nii mooy yooyee sunu borom yàlla nattoo leen ca xabaar ya nga xam ne mooy rot ca portable yi du jeex du xaaj ca la nga xamee ne nii moom mooy nekk ca ay xaba ay ay ay xam-xam-xam yu bees yu bari yoo xam ne dañ ko cee génne ba lu bari ci ñoom da ngay gis ne digganteeg seeni parents dafay doon lu sori woo lool lool la ñuy tuddee conflit des générations ndax seen bopp yaa nga occident seen bopp yaa ña nga ci leneen lu bokkul ak la nga xamee ne moom leen seen parents yi xamee woon ba loolee jur ak teqali koo gu rëy gu dox seen diggante aka bari tey ñaata xale yu jigéen yoo xam ne ñi ngi nekkoon ci mbaax xamuñu dara lu ban seen bàyyi xëy jëndal leen portable ba mu leen jëndalee portable ñu dajeeg benn xale bu góor mu jël seen numéro loolee daal di koy jokkale ak moom tey bàyyi ña nga nekk ci kër ga di nelaw ndekete yow sa doom ma ngay jokkoog muudu ba Italie ma ngay jokkoog ku nekk Kër Massar ma ngay jokkoog ku nekk Saint-Louis toute la nuit ña nga nekk ci loolu ca la yonent bi alayhi salatu wasalaam waxawoon ne amul benn jigéen buy wéete góor lu dul seytaane moo leen ñetteel tey wéetaay boobu mbokk nekkul ci wéetaayu jëmm rek waaye da ngay gis ne yaa ngi nekk sa biir néeg di wéet ak ka nga xamee ni ni tey ma nga biir France ngeen nekk guddi gi yépp ci seen biir wéetaay boobu ban loo xamee ni lu gën a grave mooy bi ñuy indilee musiba yi nga xam ne nii moom mooy Skype indil ñu musiba Viber indil ñu musiba li nga xam ne mooy ay Facebook yooyee mbokk nga xam ne ay mbir la yoo xam ne juif yi ñoo nekk ci gannaaw yooyu yépp investir ci ay milliards ba am na kooke nga xam ne mooy directeur Star Academy di benn juif am na bis muy wax ci TF1 di wax la nga xamee ne mooy Israël la ñuy investir ci Facebook di ko investir ci la nga xamee ne nii mooy ay Blackbird ak yu demee noonu nee nañ investir tuñ ko ci la nga xam ne mooy armement journaliste yi di ko laaj waaye loolu lu tax mu ne suñuy noonu yi nga xam ne ñoom dañuy xeex ak ñoom rawatina julit ñi suñu intérêt mooy seen njaboot gi sax di nelaw ndax heure bu seen njabootu julit gi yeewoo mooy ñun xam nañ ne amatuñu place ci kaw suuf looloo tax la ñuy investir ci loolu duñ ko investir ci lu nekk loolu ngeen gis mbokk suñu doom yi tey koo ci gis am na page facebook jokkoog ay milliers ci la nga xamee ne mooy ay amis façon waxin yu bon yu ne ñu koy wax xot ci seen kersa loo xam ne boo ko ubbee ñëpp gis ko waaye dañ ko gis benn problème lu tax parce que mode la façon photo bu bon bu nekk ñu indi ko ci loolee loolee tax ba xale yu góor yu bari mën a jël xatta photo yooyu chantage leen ci ba def loo leen loo xam ne nii gisuñu ko bëgguñu ko woon mbokk aka bari ay mbir yoo xam ne suñ doom yi xamuñu ko woon mën naam dañ ko daan dégg ci ay pornographie te la nga xamee ne mooy mbir yi ay homosexualité ak lesbienne waaye tey jëndal benn passe bu deux cent francs rek mën a naviguer dugg ci youtube wala google mën a dem ci yooyu yépp gis ci ay film yu bon ay jàngale yu bon loolu tax na ba tey sunu ndaw ñi nga xamee ni nii la leen yàlla subhanahu wa taala tagge woon muy jigéen ñi lislaam muy xaafila dañoo sàddane bépp bon sunu borom yàlla mu ñu inna alladina yarmuna almuhsanati alxafilati almuminat ñi nga xam ne ñi ngi sàggane ñi ngi xas jigéen ñi nga xam ne xalaatuñu lu bon duñu wax lu bon duñu xool lu bon duñu dem fu bon képp ku leen di tilimal sunu borom yàlla mu ne mbugal mu mag mi ngi leen di xaar waaye mbokk julit lu bon loolee da daan nekk ci cinéma ya lu bon loolee da daan nekk ca mbedd ya da daan nekk ci ndaje ya waaye mbokk tey lu bon loolu mi ngi ñëw ci sa biir nekk ci sa kaw lalu doom bu jigéen ci boîte boo xam ne lu ëpp ci ñun da ngay gis sa ñoo ko jënd su ko defee loolee dañuy da leen di dugal ci ñu xam ay mbir yooyu xamuñu ko woon loolee lan lay jur fokk ñu jéem a dem jéem a essayé loolu nga xam ne dañ koo jàng mbokk la nga xamee ne mooy occidentaux yi xataa bi ñuy doog a commencé seen film cinéma yi mbooleem film yi nga xam ne da daan génn lu ñu daan wax mooy film bi bu ñu xoolee ne amul benn loo xam ne nii violence moo ca nekk muy loo xam ne ak rayante la amul lenn lu jëm ci wàllu sëy dañ naan ko amul 15 ans lu ci dugg ba cinéma yi xataa biñ ko indilee ci réewu julit ñi da ngay gis ne cinéma ku amul woon 15 ans ak film ba lu mu neex neex lu mu baax baax dañ naan doo ci dugg ndax lii film rek la ca xale bi da koy essayé amma buñ demee ba xam ne film bi dafa am violence ay agrayante wala dafa am ak njaaloo dañ naan ko amul fukki at ak juróom-ñett du ko seetaan lan moo doon sabab bi ci loolu lépp ndax ñoom xamoon nañ ne xale bi heure bu gisee benn film dana ko jëmee essayé naka noonu itamit pornographie ak yu bon ya ñuy seetaan te di ko jaarale ci portable yooyu lu ci bari ci ñoom dañ koy jëmee essayé loolu moo tax ba mbokk julit mbokk na musiba yu rëy yoo xam ne nii gannaaw ba mu baaxee lu waajur yépp war a bàyyi xel mu am lu gënoon tar ci musiba yi mooy niti caaxaankat yi niti bidaa yooyee ca la ñuy jaar di sa génne la nga xam ne moom mooy seen bidaaya di dugal ci bopp xolu jullit ñi ay pas-pas yu bon ay bidaa yu bon di màggal ay doomu aadama ñu leen di téléchargel ay ay daje yoo xam ne nii wallahi dem ca baar ba wala dem ca naaj club ba sax moo gënoon nga dem ca waaye xale yi même bu dee demuñu ca it boo duggee ci la nga xam ne mooy portable yooyee daal di koy gis daal di koy seetaan loolee tax na ba parents yu bëri lan nekkoon ci diine tey seeni doom nekkatuñ ca lan moo waral loolu mooy doom bi demul dikkul waaye fi mu nekk ci biir kër gi fa la ko loolu lépp di fekk du mbir yoo xam ne mbokk ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu bàyyi ci xel bokk noonu borom xam-xam yi di wax ñu ne xam leen ni lii nga xam ne mooy portable yi nga xam ne mooy la gën a jege ci su ma nee portable mooy li gën a jege ñëpp waaye moom lay wax ci internet ba moom lay wax ci ordinateur ba moom lay wax ci clapet ba moom lay wax ci lu nekk ay lépp loo xam ne dana la mën a jokkaleeg adduna bi dañ na tey géej la goo xam ne géeju sobe géeju deret géeju musiba boo xam ne nii nag am na benn pont bu nekk ca kawam pont boobu mooy lan mooy lépp lu baax loo ci mën a jëfandikoo te wax naa leen loolu ci suñu commencement xutba ak bëri lu baax loo mën a jëfandikoo ci sa portable boobee pont boobu tànk yaa ngi sax doo dugg lu dul ci site yi jàngale diine bu sell doo dugg ci lu dul jëfandikoo ci lu lay jëriñ sa àdduna ak sa àllaaxira loolee day portable boobu day nekk yiw ñeel la waaye cay boo tarxisee ba wàcc pont bi da nga dugg ci géej goo xam ne nii da nga la yàqal sa àllaaxira yàqal la sa diggante ak sa borom loolu moo tax ba heure boo jëndee ab ab ab ab jokkukaay portable ordinateur la lu mën a doon nga la waaye nañ ko jël nga ne yàlla lii de maa ngi lay ñaan yiwam te di la muslu ci ayam maa ngi lay ñaan yiwam ak yiw wiñ ko defere di la ñaan nga musal ba ci ayam ak ay wiñ ko defere te loolu ngeen xam ne itamit mbokk julit wallahi ayam moo ëpp yiwam téeméeri junni yoon loolee ngeen bàyyi ko xel bu baax su ko defee lan moo ñu war li ñu war mooy sunu njaboot gi ñu leen di yee yéen njaboot gi di toog ak ñoom di leen xamal danger bi nekk ci internet danger bi nekk ci ordinateur danger bi nekk ci portable fexe ba saxal ci seen biir ñu bëgg yàlla màggal yàlla ci xam ne doomu aadama bi yàlla dong moo ko mën a sàmm su ko defee mu xam ne yàlla mi ngi koy seetaan lépp loo xam ne ma ngi koy def ci lu baax yàlla gis na ko waaye lu muy def ci lu bon nga xam ne bëggul woon bàyyam gis ko abadan bëggul yaayam gis ko abadan kenn ko murus bëggul mu gis ko abadan nga xam ne sunu borom yàlla jëlla wa ala moom mi ngi nekk di ko surveiller ci loolu lii bu ñu demee bam sax ci bopp xale bi mu daal di gëm yàlla daal di ragal yàlla lépp loo xam ne dana ci duggati danay wax danay xool lan moo ciy ngërëmal yàlla booy taal sa portable del wax bismillah fooy dugg del wax bismillah del ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may la lay cay njëriñ musal la ca la nga xam ne nii moom mooy ay ba ca nekk ay yéen mbokk julit ñu góorgóorlu it même la nga xamee ni nii la ngay jëfandikoo su dee ne amul benn lor bu ca nekkit xamal ne temps da nga cay ñàkk moom lor la bari na ay nit ñoo xam ne ña nga dugg ca portable yi ña nga ca seen web ña nga ca google ay xabaar yoo xam ne wallahi sa dund bi ñu ko multiplier woon par cent munta jeexal xabaar yi nekk ci internet su ko defee yow doomu aadama bi na nga def la borom xam-xam yu jëkkee daan wax lii nga xam ne mooy matériel yi dee ko jëfandikoo ni ngay jëfandikoo sa douche yéen ñëpp am ngeen douche waaye du ngeen fa yendu du ngeen fa fanaan heure boo ko soxlaa demal douche ba pare nga génnal portable bi it xoolal la ca njëriñ la la ca mën a jëriñ sama adduna ak alaxira ma xool ko su ma paree naa ko fay xool leneen lu may jëriñ waaye nuur ci portable yooyu rek day lay indil xëf la da lay indil ak càggante da lay indil ak wér gi yaram gum lay yàqal médecins yi liñ ci wax ca la nga xam ne noonu la bët yi nit nit ñi tey lëndëmee noonu la tension nit ñi tey yokkoo noonu la rhumatisme nit ñi tey yokkoo te lépp lan moo koy waral mooy contact permanent boobu nga xam ne dañ koy am ak portable yooyee loolee ku nekk ci ñun mbokk ji war naa bàyyi xel ci loolu ku nekk ci ñun bàyyi xel ci ne yow responsable nga sa kanamu njaboot sunu borom yàlla subhanahu wa taala yowm alqiyama fokk dana la taxawal mu laaj la yeneen ci bi alayhi salaam ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ma ko kon jokkoo waay yaa ngi noonu yiw ma nga ca waaye musiba bu moo ëpp sunu borom yàlla jalla wa ala la ñuy ñaan mboolem xiiwal gu mu yegsil ci ñun yal nañu yàlla wërsëgal ñu jëfandikoo ko fa nga xam ne moo ko neex dal ci ñun ñëpp ñu bokk gëm ni sunu borom mu ne summa la tusalunna yawma idin ani naim ku nekk ci ñun portable bi la yàlla wërsëgal lépp lu la yàlla wërsëgal ci ay jëfandikaay yàlla dana la laaj yowmal qiyaama na la yow day wërsëgaloon naa la loo xam ne xiiwal nangam la noo ko jëfandikoo mboolem loo ca mës a jëf da nga nekk li sa kanamu borom keroog suñu lay suñu kanamu yàlla yàlla na doon lay bu yàlla subhanahu wa taala gërëm lépp loo xam ne ni njëriñ la bu nekk ci internet bi yàlla na yàlla def ko muy suñu njaboot bi jëriñoo ko lépp luy lor loo xam ne yàqkat yi dugal nañ ko ci mu yàq seen i diine yàq seen i pas-pas yàlla yàlla subhanahu wa taala musal ci suñu njaboot yàlla ñu yàlla may njaboot gu ragal yàlla njaboot gu xam yàlla njaboot guy bàyyi xel yàlla seen borom njaboot guy nangoo jaamu yàlla yal na yàlla wàcc jàmm suñu réew wàcce ko ci réewu julit ñi fayal yi mboolemi fitna yoo xam ne tàkk na seen biir yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet te defal ñu àddina muy suñu dajewaay bu mujj ba اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين